ah ni maa ngi koy xaar sànq ba léegi moom gisaguma ko. asalaamaaleykum. waaw ñang ñang waa kër gi maa ngi lay xaar sànq ba ba léegi nag gisuma la. ah foo nekkoon. damaa nekkoon ci yoon rek. ah. kon nag del teel a ñëw nag. fii maa ngi nii boo ma fi toogee ba léegi gisuma la. man daal maa ngi woon ci gone yi rek di lijjanti dépasse mën nañ jox ci suba ba léegi. ah dépasse doo war jar naa lijjanti man moom dama kaa lijjanti woon si démb laa lijjanti di xam ne su ma xëyee suba damay mën a ñëw fii ndax fii boo fi ñëwee moom mooy seral sa xol boo nekkee kër sa xol bi rek. ah gone yi gone yi moom mënul leen a ñàkk jox dépense moom waaw il faut nga lijjanti ko de donc lijjanti moom ci moom tàng tàng tàng si si ñan man li corona man dañ see kiiwul de ñoo ngi wax rek ni waaye dañoo dañoo xamul ne tabaski baa ngi ñëw de. waaw ah, tabaski moom ak suñu doom suñu doom yi nekk si Ndakaaru mhm. ñu war a ñëw.

ah yow yow yow waaye foo foo jógee sax yow. yaa ngi mer mais su ma toogee nga kontaan. ne ma toogaal. dalal jàmm. mais est-ce que mën naa toogaale dàll yi. dàll yi moom fay nga koy sa ginnaaw gi day ñëw nii dàll yi. yi dafa seer lii ay plastique la cent cinquante mille lay jar. yow lii jël ay mille ma six cent. lii deux cent cinquante mille lay jar kon nga dem. maa ngi jël jënde France. kon nga dem. mais su ma demee dama yóbbaale lu bëri de. bàyyi ko toog toogal. waaw moo gën de. sama tànk yi. yow yow daal dafa cher bàyyi ma yow bàyyi ki ngay jege tànk ku yabaati ngeen sa baay de. sa baay moo ma gën a yara di ko sa baay yow. yow sa baay de. mais werante wu ma bàyyi ma werante xuxaan. tekki tubay lañ wax tekki tubay. dinañu xool. ma ok enveloppe bi c'est l'enveloppe de quoi enveloppe kan lan la la ci war a dem. mën naa doon xaalis mën na doon ay. affaire yaa ngi ree bi ma ñëwee reetaanoo woon da meroon. ay yow yow yow affaire moom. da meroon. <laughs> paa bi moo baax. paa bii moo baax ñaawaayam bii mi mel ne goro. maa sa baay ku dàq. boo tuddee sama baay ma jóg. sama baay ma dem. bul dugal bul dugal ma yéen rek gone. waaw bàyyil. donc 4 millions la. man damay xool rek. bàyyil danaa la ko jox. million la yéen a ko moom bul wax. père noppi danga may bàyyi ma wax sinon ma jóg dem 4 millions yi dangeen koy xoole néew ju doole yi ci koñ bi kan mooy chef de quartier. man la man yow yaay chef de man la c'est sûr. waaw man la. yow kii mooy chef mooy chef de quartier bi doo ko jox la laaj mooy chef de waaw. attention sa est-ce que mën naa xam sa nom. Paa Diagne. Paa Diagne. Paa Diagne lii loolu sama doom. attaché. Paa Diagne. mais. da ngeen koy séddale néew ji doole yi nekk ci kon. waaw. bàyyil. père ma la dara. yow yow lan nga fi yow lan nga ci kon. man. moom moo topp sama ginnaaw yaa topp ci ginnaaw kii waaw. kon man doo jox man CFA gàcce bi. loolu yéen ñaar la moom moo la koy jox ma xool rek. xool bàyyi ñag ma xool. si bii ma la ko jox. ah ma xool kon baax na maa ngi dem. dafa fi dara man nga ko waroon jox. yal na sa jaamu yàgg. père. lii nga yaakaar lii ab lii lii. lii lii mi ngi tudd pâte d'éléphant mi ngi jar deux cent cinquante millions. seen xaj bi nga takk nii. lii or la. or lii. or la eh, bu ko daggee bu ko daggee yow. dala ko iñaanee rek. da koo amut da amul ko bi dala ko iñaanee xaalis bi nga ko joxul rek a tax. su ma ñibbisee su ma ñëwaatee fii dinaa la may xar ya. waaw ngi xar rek nga koy may xar. dinaa ko may xar dinaa ko may lu mu bëgg. maa ngi dem dégg nga. man nag. ca ya kon da ngay dem. su ma demul damay lii nag moo ko moom yéen waa koñ bi eh yow yaa ngi waa koñ bi maa ngi dem waaw kon baax na joxe ruube leen ko ruube ko ruube dafa xew ku ma ruube leen ko ruube